doxalin ñëpp daal di nañ ci addu waaye tegaale ci itam ñu daal di libéré Ousmane Sonko ci ni mu gën a gaawee. waaye wi askan wi dox nañ ci itam ay jéego jaaree ko ci sëriñ Muntaxa Bassirou Mbacké xalif général des Mourides moomee joxoon leen ay tàndarma ngir ñu yóbbul ko Ousmane Sonko mu dakkal grève de la faim bi muy daal di amal. naka noonee médecin yu bëree bëri ci réewum Sénégal daal di nañ bind aw bataaxal itam doon sàkku ngir Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ñëpp dakkal grève la faim bi ñu nekk sauver itam seen ay bakken li nga xam ne nag ñëpp ñu ngi koy yaakaar di ko espérer mooy libération bu Ousmane Sonko mu daal di ñibbi këram dina am am déet lépp dina leer du yàgg dara équipe bu AGT News dana leen ko toppal ngir saa su ne ngeen ciy am ay xibaar ki jàngat yu wér te wër AGT News Ousmane Sonko suspend sa grève de la faim information donnée par El Malick Ndiaye de la communication une bonne nouvelle que tous les sympathisants Sonko sont ceux qui se sont battus pour que cette grève de la faim puisse être arrêtée en y joignant la libération immédiate d'Ousmane Sonko. Seydi en fait partie, Alioune et tant d'autres, notamment la coalition Yewwi Askan Wi qui s'est rendue à Touba pour voir le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, qui leur avait remis des dates à donner à Ousmane Sonko pour suspendre sa grève de la faim. Les médecins qui avaient écrit un communiqué eux aussi ont eu gain de cause. Et cela n'empêche que tous les Sénégalais attendent toujours son Sonko bénéficie d'une liberté provisoire. Quelle sera la suite? Restez connectés, nous vous tiendrons informés. AGT News.